gis ngeen démb état bi jël ay mesure yu xaw a jafe mooy wàllum njëg bi. état da doon subventionné maanaam bu doon jëndee dara fukki dërëm état bi gàddu ci lu tool na par exemple voilà bon je prends l'exemple cent franc nga jël cent ñaar fukki dërëm bu doon. jëndee dara ñaar fukki dërëm fekk waroon na mën na jar fanweer état bi gàddu la fukki dërëm yi. Covid jaar na fi depuis deux mille vingt mu metti ci état yi guerre bee am fële ca Ukraine mu indi jafe-jafe ci économie état yi. pétrole bi yokku parce que pétrole moo yore moo yore koom-koom àdduna. ñun suñu pétrole xëy na 2024 mu génn waaye dañuy jënd pétrole pour suñu économie. ba jëmmi jamono subvention yi nga xam ne état da ko doon dimbali askan bi mu xaw a diis. dem ba xam ne mënatul téye subvention boobule pour mën a ànd ak partenaires yi ñu wàññi subvention bi wàññi subvention boobu lala indi mooy njëg yi yokku. essence yokku électricité yokku waaye loolu mu yokk am na ñoo xam ne du leen laal néew ji doole ji yokku courant bi du leen laal moo ñu lekk la tranche sociale du leen laal essence bi yokku cent franc gasoil yokku cent franc waaye état bi ni dana jël ci ay koppar jàppale les acteurs du transport waaye aussi dana jël ay koppar jàpp maanaam yokk les bourses de sécurité familiale parce que képp koo xam ni danoon fay maanaam cent mille francs par at maanaam yokk na day dem ba cent quarante mille francs ci at mi loolu bu ko président defee c'est pour mën a jàppale maanaam néew doole ji yokk salaire yi fonctionnaire yi gis nañu seen yokkum salaire ci fu mu toll donc lii ñu jël comme mesure wàññi maanaam euh, subvention bi xëy na bu ñu ba prix pétrole bi wàññeeku ci àdduna bi mën na am njëg bi président maanaam dellu soit ci yenn njëg yi donc nañ ko jàppee noonu parce que bu ëllëgee di ngeen gis les apprentis politiques les apprentis opposants nekk di wax lu leen neex ci loolu mais état moo tëddee noonu parce que maintenant avec lu ñuy wax la mondialisation amatul frontière économique yow obligé nga tenir compte lu xew ci monde bi. comme wax nañ ko dana am un soutien social pour wàññi impact bi maanaam pour wàññi yëg-yëg bi loolu moo tax su le transport am na luy génn pour que maanaam prix transport mu bañ a yokk loolu moo tax la tranche sociale. d' accord tranche sociale bi nga xam ne ñuy fay ñuy fay courant tranche social boobu la duñ ko laal parce que état bi da koy gàddu d'une certaine manière te gis ngeen aussi effort yu ñu pour mën a téye njëg yi état bi dafa renoncer lu ji bëri loo xam ni euh, dafa waroon dem ci askan bi état bi renoncer ko donc xam naa période rek la day doon xëy na bu ëllëgee bu conjoncture mondiale changé tuuti bu neexeel dañuy ñaan ñu delluwaat ci état ñu nekkoon.